mais man film bi gisuma dara lu ci ñaaw waaw gisuma dara aussi lu ci ñaaw ba nit ñi war a mën a nekk di ci critiquer daal mais film bi neex na neex na yàlla na leen yàlla na jàppale neex bu commencé lu waaye jàppoon da bàyyi ndax maîtresse neex na torop moom macha allah mais Marème Dial moom bu mu mettit lu nit ñi bu mu mettit lu waxi nit ñi ku ñëpp a li nga tooy ah, ku ñëpp a li nga tooy Marème ku métti li na gën a yokk rôlam defar ba mu baax gën a gën a ñame gën a am fit ci li muy liggéey bu mu déglu nit ñi waaw série bi neex na torop neex na torop maîtresse moom mooy bomb dëgg neexul waaw salaamaaleykum salaamaaleykum nuyu naa ñëpp euh, di ñëw pour wax ci série bi euh, série bi neex na torop torop torop torop torop bon man lu ma ci wax du bari eh, dama bëgg a ñëw directement ci Cheikh Cheikh daal lu ji jaag moom mooy jaag parce que eh, moom moo tax ba maram ñëw sa këram maram ñëwum ci këru Lalla du coobaraam maanaam Cheikh bu doxalee woon nu mu waree doxalee nu mu waroon a doxalee kon maram du ñëw ci këram ci këru Lalla waaw parce que boo leen xoolee ba xool marem moo aye marem moo aye cheikh daal bu xam na ne si marem la aye marem bu ko woowee ah mu wax ko ne ah man comme ko xale bi dafa feebaroon jéggal ma rek ba suba ma ñëw yeggali ay bi ci yow mais waru ko woon gëdd gëdd bu metti boobu parce que daf ko daf ko ridiculiser parce que marem jigéen kese la te jabar la jabar la te moom moo aye waaw ku aye nag danga koy jox sa ay waaw mais comme ni ñuy wax ci góor yi rek jeng moom dafa baaxul waaw jeng ba baaxul dara dara dara dara dara waroo ko waxee noonu bu mu ko xam na ne bu waxee ak marem noonu marem dafay ñëw parce que marem dafa am fit dafay ñëw jël si ko ci force kon waru woon waxee noonu seex daal mooy yàq seex daal moo yàq lépp dafa xool nu muy doxalee ci ay jabaram parce que ñoom ñaar ñëpp ay jabar lañ ko waaye daal mu jox la sa ay ba mu mot waaw wala mu xam nu muy waxee ak ñoom man loolu laa amoon comme idée bu may joxe. et puis li ma gën a neex diggante Racky ak Moustapha foofu diggante bu dafa neex comme ñoo ñaar seen job ak ñoom ñaar xam nga mun nga wax ne ñoom ñaar kenn amu ci doole daal comme ci ni ñuy joué dafa neex billaay surtout keroog bi ko rek naan ko amul soit doo ma takk keroog sax dama dama kontaan dama kontaan te Moustapha jaraki jaay pereg la daf ko doon jaay neex mais jigéen rek ak moroomam ak neex ça va ça va ci loolu la nekk yéen waa Mercedes maa leen di kontaane bu wér a di leen ñaanal jàmm di ñaan Sénégal jàmm en tout cas man moom dama kontaan trop ci film bi daf ma intéressé trop euh, su commencé damay am pour seetaan ko si su ma damay am plaisir bu neex en tout cas daal man maa ngi ci côté Cheikh Diagne sama tooma ak Marème Marème ak a jonge ak maa bëgg jigéen bu mel ko Marème mu daal dama kontaan daal Sénégal daal wax dëgg mi ngi noonu mais nag Sénégal moom xam nga nekk na réew boo xam ne duñu nangu daal ñoom du ñu nangu ñëpp mënuñu nangu ci benn affaire mais bu ñu déranger lii dafa neex man daal dama kontaan dama koy topp court à court chaque jour dama koy topp. asalaamaaleykum maa ngi ziar yéen si jàmm macha allah série bi neex na trop waaye yokk leen góorgóorlu rek Sénégal moo doon dëkk boo xam ne moom kenn mënu fi def bu mucc waaw série bi macha allah Marème Diagne ak Cheikh Diagne macha allah dama Marème dama neex trop waaw Marème moom vraiment dama neex rôle bi mu joué ci dafa neex trop gis nga waxi Sénégalais yi ba mu tax mu ko mu arrêté ko Sénégal ci tam wax. série dafa neex ñun jeunes yi barki yàlla dañ koy topp waaw altine ak vendredi bu jotee bu ne dañuy bàyyi lépp li ñuy def ñëw seetaan Cheikh Diagne ak Marème Diagne Marème Diagne madame ay fo lu ko kenn yàqal reyanteel ah Sénégal ñoo bëri wax salaamaaleykum ah vraiment kontaan nañ ci série am na solo top ah ñu bari dañ ci gis seen bopp aussi parce que ay réalité rek laay gis si si série bi man moom particulièrement ah, Marème Marème vraiment daf ma neex ah, may dégg un genre di wax naan dafa xaw vulgaire rek wax yi muy wax parce que boo toogee sa fam man pour man loolu amul benn problème waaw ah, Marème yi muy wax yëpp man moom neex na ma parce que mooy ni muy ñëwee rek ni mu ko yëgee noonu la koy waxee. du dëgg parce que rôle ko jox tamit dafa laaj loolu moo tax moom muy doxalee loolu waaw te li Cheikh Diagne def man moom rafetlu ma ko Cheikh Diagne waru woon bàyyi ayu jàmbur moom moo tooñ ma waru woon jël ayu jàmbur di dem di dem kër laal la waaw mare moom li mu def noonu dama dama ko daf ma neex daal neex na ma torop li mu dem kër laal la moom vraiment neex na ma torop waaw kay récupéré lu moom asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Lu TV maa ngi am kontante bu baax ak mbégte ci seen série Maîtresse bi macha allah seen film bi neex na yéen a ngi bégal nit ñi yéen a ngi yee doomu aadama yi yéen a ngi yee tamit jigéen ñi تقسيم كلمة بان احنا الطرب طرب طرب ان احنا دين ياه تقتل بري بري بري اها melala ci boppam moom jigéen la fees na palaasam del mu ngi doon toppatoo jëkkëram toppatoo doomam defar biyom ba macha allah kon jigéen bum tax mu yàq lépp kon mareem bum tax mu yàq lépp dégg nga ndax eh, amul solo daal ndax mareem moom itam ni ma ko gisee ku xam li muy def la ku xam li muy def bu baax a baax la ndax maa ngi gis muy dem ci kër gi fekk jëkkëram ñu ne loolu waru ko def ah kay war na ko def parce que kër jëkkëram la parce que Cheikh dafa takk laala ci sunna ak farata takk mareen ci sunna ak farata kon ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk yam kon kër gi heure bu ko neexee mën na dugg mën na génn ndax kër jëkkëram la dégg nga xanaa kay comme ni ko defee dem fekk. jëkkëram ak bu jëm toog dégg loolu tamit waru ko mais jëkkër lu na def ak lu na def lu metti metti metti toogal na muñ xaar ko yàgg yàgg di ngeen wéet bu ñëwee ngeen toog waxtaan kenn ku nekk nga wax sa morom li nga xamante ni moom ngay man dégg nga moo ko mais wur woon réagiré noonu mais kër gi moom ñoom ñëpp bokk yam heure bu ko neexee mën a dugg mën na génn waaw Cheikh Diagne tamit bon na jël ay matukaayam bu baax a baax a baax ah, jël ay responsabilité am te xam ne ñaari soxna la yor te daf leen a war a yemale wurtu jël ayu kenn di ko jox moroomam waaw dafa war a jox ki ayam ba mu mat mu jox ki ayam noonu lay def léegi melaa la jigéen wujju bu mu tax nga changé nam meloon démb ak bërki démb la war a continuer ba léegi ndax damay dégg olof njaay ni jigéen mën naa xëy étage ba mu kawe xëy xëy màbb lépp bu fu sa tagg jaaroon saw xas dina fa jaaraat baraba fa saw tagg jaaroon déggoo leen ma de jigéen mën na defar àddunaam mën na tabax ba ci kaw xëy xëy ni rajax lépp fasaare ko ndax lan ndax wujju jaru ko ndax moom amoon na way ba pare waaw kon fépp fu wayam jaaroon ba aw xasam jaraat fa ba aw wayam jaaroon aw xasam toppaat ci jaar ja ci mom la mais jigéen bul ko temps changé nu continuer mu ñëw déglu mareem waaw su mareem ñëwee su amee jàmm mu ànd ak moom nekk jàmm ànd ñu am jàmm su ko weesi leneen boobaa mu xam na muy def ndax xam na na muy sëyee kenn du ko ko jàngal mais jigéen tamit bu ci jëlul yenni ndax yàgg-yàgg donte lalla moom dafa dafa fekke ji ala ku yaarin keneen da koy fekki waw kon foofu la wala xool te góor tamit kenn mënu ko sàmm kenn mënu ko téye waaw saa yu gisee li mu bëgg rek si jam jóg loolu la ñoo ngi am kontante ak mbégte bu baax a baax nag seen émission neex na trop sax. waaw maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu tey boo gisee tey laal joué lool noonu du question moom day na nit yi nañ bon déedéet tey man pour man nit ku baax wala nit ku bëgg a baax bu xoolee ci loolu noonu dina ne man kat xaaral ma teggi sama tànk ndax wuja jarul lii gaa ndax yàlla moo santaane góor yi nañ takk ba ñeenti jabar xam nga kon nag moom moom cadre yeete la ko indi waaye du cadre cadre yàq ku ci bëgg a bon tamit dalaa neex rek nga bon wala mu fekk nga bon ba pare ndax bon kenn du ko jàngale day fekk nga bon ba pare yaa ngi dégg bon kenn du ko jàngal kenn nit mu noo baax ba pare bon xëy na nag fu film bee ko laaj man man lu muy gérer noonu man gisuma ci dara gisuma ci loo xamante am na am am na défaut. ndax day day mel ne yow tey boo demee école tey buñ la ne bindal A dangay bind A loolu rek la bu doo buñ ne bindal A ngay dem bind B foog nga bind A loolu rek la waaye bu bul xool laala mi moom moom day yàq wala day def parce que film boo ko laaj wala ñoom li ñuy joué dafa am booy xool bi ci biir loolu rek moo am Sénégal tamit. waa Luxe TV man nag sama contribution bëggoon naa ma tamit muy jàll comme ni ma koy déggee ñëpp di ko jàllale gis nga Marème deful dara lu may eh, régler sëyam gis nga aawe yi jël li ñu moom bëgg jël li keneen moom mareem nag bala kaa kenn romb naan yaa ngi jël li mu moom ci kawam ngay jaar la masta dof Lalla doomam masta feebar Lalla lim fi def yépp ay naxe la kon nag li mareem def mooy fula waaw man na damaa xam ndax li ma wax dana yeggam du yegg nu may def ba bokk ci groupe bi loolu lay wér salaamaaleykum waa séribi bi na ngeen def la maîtresse na ngeen def yéen a ngi ci jàmm ziar naa leen bu baax baax ah man dama gis seen numéro bi si youtube bi ma ne pourquoi pas ma dugg participer man ma war dëgg yàlla séribi bi lépp ma ci neex lépp ma ci neex série bi daal. Marème surtout Marème nag Marème Dial moom oh chapeau à moom Marème Dial mi ngi wàccee Sénégal mu ngi koy wàccee ba mu doon xaaju zéro nii waaw Marème li muy def lépp a neex lépp a neex mais kanta wujjam na xam ne àddina amul solo te àddina teraangay neen la ah moom mi ngi def lu baax ba heure bi bu mu ko yàq bu mu ko yàq te nag dafa war a xam ne nag ah, ñaareeli ñoo ko de ren jii ren jii ñaareel yee ko yor. <laughs> asalaamaaleykum bi ah, neex na trop neex trop man li laa bëgg si série day am action action foo am si série quoi yoo xam ne bàyyi fa muy garaaw trop trop trop trop man dama koy suivre depuis depuis mu commencé ba léegi maa ngi koy suivre naajement naajement neex trop quoi surtout surtout Cheikh surtout Cheikh mu jëlee nii ni mu jëlee nii naaj trop. ngi soo yore ñaari jabar fa nga ñemee dëgg quoi noonu naaj trop te loolu may am quoi naaj trop trop maa koy seetaan bu baax a baax aw jabar nag wante maa koy seetaan bu baax a baax. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu Xew TV mais dama bëggoon a wax ci série maîtresse mais Cheikh Diagne ma kii Lalla teewu ko fa moom moo fa téye boppam ndax li tax mu téye fa boppam ni Marème defee la ak li Marème waxee moo tax day découragé ci moom. gis nga góor moo xale yow boo ko defalul rek lu bëri boo indi saytaane ci kawam rek mu découragé ci yow mais bu leen jël mareem di ko encouragé mareem lu mu def dëgg ko fenn wutoon na ñëw kër jaamur jëkkëram la ko séq ak wutoon ñëw kër jaamur asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare yéen ñëpp ñu dugg ak ñu jotagul a dugg waaye ci série bi rek laa bëggoon wax man série bi moom neex na ma macha allah maa ngi leen di ñaanal ki ko xalaat moom xam na ñun li ñuy dundu waaw ñun sénégalais yi lii la ñuy dund lii moo am tamit ci kër yi ma ne lii moo am ci kër yi man moom léeg damay xaw a mere làll tuuti mais léeg ma xaw a ànd ak moom marem tamit wax dëgg yàlla man série bii passé moom moom laa àndal xam nga li moom laa àndal dafa bañ ba commencé joxe ay waaw di ay ay loo ku nekk sa deux jours waxta aye ci moom mu defar reeram préparé lépp même bu fekkee sax dafa am gan kër kër laa la dafa woo Marème dafa war a woo Marème expliquer ko wax ko ko du question tàggu wala yëgal mais daka ko war a jox respect boo xam ne ndax jabar la ni laa la jabar la ni laa xam nga jigéen moom lépp rek na nga waxtaan ak moom soo waxtaanee ak moom amul benn problème dina la comprendre mais toog fa mu toog mu war a aye ci moom ñëwul mu koy woo téléphone mu koy wax lool man su doon man ni mu réagiré noonu laay réagiré wax dëgg yàlla man moom Marème laa àndal moom Marème laa àndal macha allah. maa ngi leen di ñaanal nag liggéey bi continuer jëm ca kaw ca kanam macha allah li ngeen ci bëgg lépp yàlla defal leen ko waa numéro bi nag kon ni ko ndaw soos waxee dama ko gis ci kii youtube bi rek ma ne xaaral ma ne naa ko enregistré bu defee may dugg di kii puisque dama leen di tout le temps ma ne dama leen di tout le temps lool moo tax ndax série bi moom intéressé na ma macha allah balaa commencé damay def samay julli def yëpp toog di ko xaax léeg-léeg sax ci laa koy seetaanee. kontaan nañu ñoo ngi leen di ñaanal ca kaw ca kanam macha allah. salaamaaleykum waa série maîtresse maa leen di nuyu di leen ziar ah, di leen jaajëfal di kontaan rek bu baax sax saa su ne waaw man de malgré sax man góor laa ah, am na yoo xamante ne waruma koo wax mais man damay yàkkamti lundi ak vendredi pour mën a seetaan seen seen seen série bi parce que dafa neex dafa neex bilaay teg ci tamit am importance man kay li ma kontor mooy ñi fi nekkoon di ko critiquer di naan maîtresse série bi patati patata xamuñu dara ñi ko doon ñi ko doon ñi ko doon critiquer yëpp xamuñu dara waaw série bi deful dara lu dul neex am importance di yéene ñi loolu kese la ok. salaamaaleykum yéen waa Mekneur na ngeen def bàyyi nañ si jàmm kontaan naa si ma del siwaat ñaan la jàmm rek ñaan yàlla ngeen am jàmm yéen daal film bi moom macha allah macha allah Sénégal nag moom ñoo mel noon ñooy ñoo nekk nit ñoo xam ne tey jii boo jëmee nii ñu nii nga waroon a jëm nga jëm nii ñu ne nii nga war a jëm war a Youssou Ndour way Youssou wala ma waxoon rek su ma dàqee sama xar ñu ne war ngaa aw ma dàq sama mbaam ñu ne waru a def nii ma war mbaam ñu ne kii ma wàcc mbaam ñu ni kii moo gàttam xel Sénégal nag noonu la rek moom noonu lay def moom moom loo wax il faut nan am loo xam nan ko sécuriser wala dara il faut nga am lu sikka loolu moom du yéen li yéen waa yéen rek ñëpp lañ koy def ñëpp ñëpp série fi jaar yëpp lañ def waaye série bi neex na macha allah dina bégal doomu aadama njaay bu nga meral mer ba nga xam ne sa xol tàng soo ko seetaanee da ngay bége day mel ni amoo woon benn problème te dafa mel ni da ngeen da ngeen dugg si biir kër yi di laaj ni ñi nit ñi di leen wax ngeen jouer film bi comme noonu la dafa mel ni dangeen ngeen dugg si biir kër yi ndi laaj nit ñi li ñuy dund nit ñi di leen ko ngeen koy jouer macha allah macha allah képp ku soxoru rek xam ne yéen moom li ngeen di def lu neex la lu am njariñ la bu ñëpp mel ni yéen Sénégal ñëpp dinañ yeewu ñëpp dinañ bëggee kenn ku ne ak sa borom ko di nga moom di nga xam ni ngay doxolek sa borom ko yéen daal ku leen mënta ñaanal na leen bàyyi bu leen toppatoo bu leen déglu xoolal yoon wi ngeen di aw aw leen ci jubal rek. duur rek lépp ci kanam incha allah lépp ci kanam ndax Marème mi ni wax lépp ngir bëgg a bëggal yi rek moom lay def ngir bëggal gaa yi rek macha allah yal na yàlla yokk xéwal gi gudd fon gi ko ànd ak wér gu yaram ba lépp lu ngeen bëgg a defar Sénégal ngeen defar ko ban dem ma dem ban naan am ngeen ay tele télé rajo rajo ci barke Seydina Mohamed ba seen télé bi rajo bi nekk fépp si àdduna bi fu waaye toll fu ne man leen di seetaan yàlla man na ko yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen man ne kontaan naa si yéen ndax man li ngeen man bari na bari goo xam man rek maa ko xam ak yàlla suñu borom keneen xamu ko. asalaamaaleykum sama gars yi nuyu naa leen leen yéen ñëpp euh, ñi nga xamante ni ñoo ngi participer ci euh, lu xew TV di ñëpp. baax di ñëw nag ci maîtresse un homme marié di wax ci maanaam euh, euh, Lalla euh, li tax mënul considérer Marème comme nawle fi ma gisee ak sama xalaat mooy que ni jigéen dafa war a gëm boppam ndax nit ki loo ko bëgg-bëgg ak lu ngeen bëggante bëggante war na am foo xamee ni dangeen fay yem leen a àgg fenn fi nit ki loo nekk ak moom relation warulaa jël di la yóbbu ci kër ci këram yóbbu la ci néeg soxnaam ci kaw lalam salle soxnaam di wax soxnaam loo xam ne du dëgg tax na lu bare bari tey yàq xolu lalla ci boroom këram jigéen daal ni ma ko mën a jànge foofu ndax wujje dafa metti te dafa garaaw te kom nag dangay fekki wujju boo bëggee ka nga fay fekk respecté la soo bëggee ka nga fay fekk nawloo la sa jëkkër na la fekk fi la war a fekk nga mel ni nga war a mel comme sa nawle mais nag sama wujj bi sama jëkkër da ko dal indi fii sama néeg di tëdd moom sama salle de bain sama kawlal di ma fen tey mu takk ko vraiment dal man lal la wax dëgg yàlla mu waru ko mën a jaay lu ko saf waru ko mën a jaay tamit lenn loo xamee ni lu ko saf la série bi nag neex na trop mais nag euh, sama xalaat daal foofu laa gisee. ziar naa leen ci li ngeen nekk bàyyi nañ ci jàmm waa série bi macha allah macha allah dafa neex man moom duma ko tardé moom dama leen di topp macha allah duma ko tardé benn yoon. mais daal nañ xam ne tamit ñaareel yee ko yor tamit Lalla waru woon dem kër Cheikh Diagne parce que xam na ne Cheikh tôt tard dina ñëw parce que xam na ne ñaareel yee ko yor. maa ngi leen ziare man daal maram daal lu mu def ànd naa ci moom vraiment maram daal fulam fula la yor waaye fekkante ne sa jour la yaa ko aaye waaw léegi nag bu fekkante ne dem na ba nga teg reer gisoo ko da nga ko war a da seet du nga moom waaw moom vraiment ànd naa ci moom waaw rek moom dafa dañ kump kump dañ kump rek moo ko yóbbu fee waaye rek moom vraiment weere na fii waaye bon merci jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum na ngeen def ça va tuut na ngeen def nam naa leen de ah émission bi neex na trop trop trop trop trop neex na kontaan naa. kontaan naa si émission bi moom wax dëgg yàlla koy seetaan moom dangay bëgg Marème yow yamaar rek leer Marème lu tax nga nga fàtte moom dafa fatte dafa fàtte fàtte nga torop yenn saa yi moom du ma lay seetaan du ma la sax bëgg a xool fàtte nga de Marème te nag maa kii raki raki tamit yal na la yàlla jubalee sa sa borom sa kii boobu sa nekkaale boobu yal na la yàlla jubóole moom na parce que tamit loolu tamit dafa neex neex na trop wante tamit xam naa ne tamit xëy na fen geen ko fen moo tax mu bëgg a doo wax ko dëgg rek lii dëgg rek doo wax ko ko ji moom wante nag yal na leen yàlla daal rataxal diggante bi man daal seen ànd boobu moom bu kenn yàq. waa waa sëñ bi man dama bëggoon a joxe sama xalaat ci série bi di wax ne Marème daal lim def léegi daal ëpp na ëpp na trop war woon a topp Cheikh Cheikh war koon topp mun naa daf mel daal daf may daf bëgg a jaaxal daal lim def nag ànduma ci man de ma si di wax ne rakk tamit démb ah fi fenn sa faa gis nga par ñu fekk fekkante foofu noonu. moom tamit en plus dina amante dina amante problème ak Moustapha de seet daal neex na torop daal démb daal zéro faute neex na torop ñu ngi leen maa ngi ziar yéen ci jàmm bu baax waaw man nag damay suivre maîtresse amul benn série bu ma ci rëcc waaye wax dëgg yàlla man moom dama ko dalee seetaan ba léegi dama cee gisagul fët mareem li muy def baax na. ñeneen ñi tamit li ñuy def baax na te démb moom damaa gën a kontaan ci moom bi amee fitu dem ba si kër Cheikh foofu nan na fa nar a wax <laughs> loolu rek laa yàkkal ndee fekkee mais en tout cas man moom lim def moom man kontaan naa ndax Cheikh Diagne dafa bëgg lu yomb fexe ba dugg ci ñaare na assumer ay responsabilité waaye toog rek di xoole wóorul daal man maa ko gëm waaw noonu mu def de noonu la man ne kontaan naa ci torop sax. bonjour waa maîtresse. maa ngi leen di mais tamit man tax ma bëgg Marème Marème daal dama ko fan lu mu yokk loxoom nag doyut mais nag na wàññi tooñ yi tooñ moom baaxul mooy loolu noonu <laughs> laala dama ko sax mujjee yaram mu ngi noonu toog ndeysaan série bi moom wax dëgg yàlla kenn amul lum ci kaas kenn amul lum ci wax seddu naa nag nit ñaa ngi commentaire di wax ñi naan série bi baaxul mais yéen daal nekk leen ci li ngeen nekk di te xam ne Sénégal moo demee noonu booy def dara dina am ñu ko bëgg am ñu ko bañ jon mooy loolu li ngeen def neex na torop asalaamaaleykum nu ngeen def waa panel bi mbaa yéen a ngi ci jàmm maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram man la Maguette Marème Sylla fi si itali léegi na film bi laa bëggoon na wax tuuti sama xalaat daal waa parce que seex moom am na droit takk ba ñeenti jabar ndax lépp lalla la lalla moo moo topp seex sës ba sës ko ci miir bi seex mujj dem takk ñaareel góor gu ne góor la góor moom boo xasee jàpp sa jëkkër ni mi ngi def nag su dul noona am na neneen nooy doxale lu du topp ko di ko surwee di ko topp di ko topp ba mu far na takk na léegi na takk na nga ne wuyee dangay dof doflu dem dof ba entré hôpital <laughs> Marème moom ku am fula la Marème moom fi mu ko jàpp noonu la bu mu daw bu mu daay fu ko jàpp rek <laughs> noonu la <laughs> film bi neex na trop neex na trop man depuis mu commencé ba nëga ni benn duma ci raw yëpp dama koy siifuur kontaan naa trop kontaan naa trop si yéen maa leen di siyaare lu baree bare bale di leen balu àq na ci koor gi di leen ko baal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum yéen waa maîtresse d'un homme marié nu ngi leen bu baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaanal waa réew yëpp waa Sénégal di ñaanal jàmm di ñaanal waa bitim réew gi ñu nekk di ñaanal jàmm bu baax kenn ku nekk li nga fi ut nga am ko ba ñëwaat Sénégal ci jàmm ak salaam di leen kontaane bu baax waaw épisode cinq bi seetaan nañ ko am na solo bu baax waaw daanaka liñ ciy commenté moom daanaka du bari j'espère que du bëri noonu waaw Marème li mu li mu li mu li mu fi épisode bi jeexee exactly mareem noonu mu def noonu noonu rek la war a def ay seex moo dëpp kar gi nag mais man li may wax tamit ak question bi may posé waate mooy ki bi maram bi mareem wootee ki décroché téléphone bi man jàpp naa ne du seex ki wax ak mareem ne ko bu ma woowati maa fi ma war a nekk patati patata yàpp naa ne kooku du seex xam naa ne yàqkan la rek mais du seex waaw ah, mais seex tamit cuune na ba pare seex na gën a jël ay responsabilités am waaw góor yàlla danga war a wane ne góor yàlla nga di appliqué waaw ku bëgg akara nag dangay ngay ñeme kaani kon ku moo takk ñaari jabaram na assumé ay responsabilité am loolu laay wax na assumé responsabilité góor ji wan ne góor ñi dañoo war a góoree ndax jigéen ñi tedd ngeen lool yàlla moo wax ci alxuraan ne jigéen ñi baax ngeen lool ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa jigéen ñi baax ngeen lool waaye góor ñi mooy seen ñooy seen kilifa bu ñu leen fontoo nii la demee waaw di wax tamit rakki rakki ak Moustapha li ma ciy wax rakki juum na te bu deful ndànk alal mooy lool noonu alal doxul jàmm te bu deful ndànk diggante Moustapha dina yàqu ndax am na épisode yi suma juumul xam na fu Moustapha doon répété ak gel wi répétition noonu mu zalu te boobu nangulagul Moustapha comme ko dem na ba nangul ko nag na assumer responsabilité am jàpp fi mu jàpp xam ne mbëggeel mooy njëkk mooy mujj waaw te bool bu ne am na kubéer te nit ku ne da nga ànd ak nag sa kubéer di ko wax Sénégal yëpp di ko wax jigéen ñépp di ko wax góor ñépp bool bu nekk am na kubéer nit ku nekk nga xool kii sa kubéer nga ànd ak moom man de lii laa wax.